mais ba ma ba ma newee moom moom accueillir à bras ouverts teg ma ci wetam teg ma ci condition yi noire parce que chef de chambre yi aussi dañuy bokk ñu gars yi am ñuy tëddee quoi mais am na fa et puis lu ma gën a frappé mooy ba ma génnee un ami ma ma interpellé na ma ba amoo fa gel affaire bi jaaxal ma quoi mais après comprendre naa ko parce que loolu moo fa am en réalité voilà mu nekk témoignage ki nga xamante ne jotoon na dem fële ci prison mais la plupart de temps lan la dañ leen di yi ñi ñuy violé la wala loo xamante ne dañ ci ànd waaw moom ci explication yi mi ngi koy expliquer sax di wax ni xam nga les prisons sénégalaises sont caractérisées par ce qu'on appelle un surpeuplement carcéral maanaam euh, surpopulation bi nga xam moo am ci prison yi dañu dépasser seen capacité d'accueil expliquer que tàncaloo boobu nga xamante ne day day am seen biir justement promiscuité boobu noonu day dem ba favorable ak li nga xamante ne moom mooy indi pratique homosexuelle ndax mi ngi lay expliquer ne am na ñoo xam ne duñu am force fu ñu tëdd doo mën a tëdd dañuy obligé di tegalante ak yooyu donc loolu yëpp nekk na loo xam ne euh, daf koy favoriser kon li nga xamante ni moom mooy les pratiques homosexuelles dans les prisons li koy gën a favoriser génn na ci témoignage bi nga xam ne day indi ci digg seen nga xamante ne ñoom ñooy détenu léegi nag xam nga surpeuplement carcéral moom yàgg nañ ko wax fii Sénégal mais en réalité il faut loolu pour mu mën fi jeex ñu mën a situer d' abord les parce que ñu bëri dañ ciy accuser administration pénitentiaire moom boo defee seetlu nga xam ne administration pénitentiaire amuñu benn responsabilité par rapport ak surpopulation responsabilité bi mooy ñi nga xamante ne dañ fay envoyé systématiquement des détenus ñu ñëpp xam nañ ni prison bu Rebeuss tey yaa ngi ci 2000 yu tegal xam nga dépassé nga sa capacité d'accueil mais à qui la faute parce que garde pénitentiaire ñoom dañ leen di dénk rek juge d'instruction wala procureur ñooy placé ñoom dañ leen di dénk rek ñu jël garde donc ñoom amuñ benn responsabilité ci wàllu boobu donc ñi fay envoyé systématiquement am nañ fa responsabilité mais tamit ñu jéem a xalaat yeneen xel a xalaat yoo xamante ne su suñ ko defee lii lu mel nii dina mën a jeex du yem rek ci prison yi mais fépp foo xamante ne ñu ngi fay def pratique bi ndax nekk na loo xamante ne amul benn diine bu koy rafetlu amul benn aada bu koy rafetlu dëppawul ak suñu loolu mooy li nga xamante ne moom moo waral article 319 code pénal tere ko te tamit ci article boobu sax li jaral leeral mooy euh, loi wu Sénégal terewul nga doon góor jigéen mais day tere nga jëfe ko xam nga loolu ça n'a aucun sens booy tere ñaar yëpp ngay tere man gisaguma koo xamante ne dana rek man euh, góor jigéen laa du ko jëfee déedéet mais ñaar yëpp la ñu war a tere parce que daf ci am ay ay mbir yu sew yoo xamante ni dafa nekk ci loi bi te day day jëre càmbar code pénal ba code pénal jeex doo fa dégg mukk moo homosexuel wala homosexualité acte contractuel nga fay dégg. Pape ñëwoo ci ñu nekk ci prison ndax dañ leen di violer wala ci seen consentement dafay fay demee. Euh, bu weesoo ki nga xamante ne interrogé nañ ko muy maam moo di jóg am na ñeneen ñoo xamante ni waxtaan nañoo ak ñoom ñaam seede sax mais waxtaan nañoo ak ñoom xamal ma pour ñu xamal ñu loolu naka lay nekkee. explication bi ñu ci njëkk joxe a joxe Mamadou Diop joxe na ko léegi tàncaloo bu métti bi mais ñaareelu explication bi mooy maanaam mooy ñi nga xamante ne dañuy yàgg kaso lool lool lool lool nekk fa ay ati at mënoo am possibilité pour pour possibilité pour nga génn donc ñoom dañuy dem ba besoin naturel boobu nga xamante ne mënuñ ko satisfaire moom mooy transformé seen biir jàppaleen ba ñoo xam ne dañuy euh, versé wu ci yeneen pratique yoo xam xamante noonu te ñoom buñ koy def wax na ko léegi. ay à des heures tardive trois heures du matin nga xam ne ñëpp dañuy tëdd nelaw garde pénitentiaire duñ fa nekk foofu mën nañ la jaay doole mën nañ la forcer mën nañ la def naka sudul noonu mën nga doon innocent boo xam ne dañ lay dugal boole laak ay chambre ñoo xam ne waroo nekk ak ñoom ñoo xamante ne ay bandits de grand chemin lañ waruñ leen jaxase ak ñi nga xamante ne soit détention préventive lañ ñi ñu condamné ba pare ak ñi nga xamante ne dañ nekk kon euh, détention provisoire dañ leen di war di xaajale su ko defee kon pratique yooyu dina nekk loo xamante ne day dakk day dakk luy wàññeeku lay doon donc loolu également il faudrait que tamit ñu jël ci ay matuwaay surtout responsabilité yi pour que lu mel ni mën a jeex ndax nekk na loo xamante ni gënul da ngay gis koo xamante dangay da ngay innocent set wicc dugg prison jële fa yeneen jikko yu doy waar gis nañ ko fi. Mhm. am na également ñoo xamante ni bu ñu malgré sanction bu condamnation bu bu métti bi ñu di teg terewul bu ñu génnee dañuy delluwaat ci li nga xamante ni moom la ñu nekkoon. est-ce que léegi jotul ñuy def ay visites yoo xamante ne seeni soxna mën nañu ñëw euh, kii leen ne amuñu bërëb yi ci war. xam nga loolu waxtaan bi passé waxtaanoon nañ ko fi ak ki fi invité woon maanaam li ñu tuddee visite conjugale ndax dañ ko neñ moo ci yeneen dëkk yi bu fekkente ne danga nekk soxna wala góor ñu jàppale kaso diir bu yàgg dañ lay amal visite conjugale boo xam ne dafa am fu ñuy aménager ci prison bi foo xamante bu dee góor nga di fa mën a nekk ak sa soxna benn diir bu dee jigéen nga tam di nga fa mën a nekk ak sa bërëb ndaxte tamit sexualité dafa nekk un besoin naturel comme yeneen comme lekk ak naan ak yi ñuy dem ci jëfin yu ñaaw yooyu ci biir prison yi mhm. est-ce que tamit visite conjugale boobu nekkul solution mais pour cela il faudrait que benn genre isolement boo xamante ne loolu dina fay mën a nekk quand on sait que euh, prison Sénégal yi dafa am benn xataay bu extraordinaire boo xamante ne moom peut-être yenn pratique yi nga xamante ne pratique ak contre nature lañ koy tuddee. Mm, man papa euh, euh, bëgg naa xam euh, ci njëlbeen ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñooy jiite kaso yooyu la moo xam garde pénitentiaire la ak ku mu mën a doon ndax réeree nañ ndax wóor na leen ni acte yooyu ndax am nañ ci lu leen wóor ndax yëg nañ ko en fait mm-hmm. lu mel noonu mi ngi am ci prison yi. Mm-hmm. en premier lieu deuxièmement mooy ndax bu dee ni yëg nañ ko ñoom ban taxawaay lañ ci am ñaareelu mbir ñetteelu mbir bi mooy euh, je peux me tromper mais j'ai l'impression que euh, dafa dem ba nekk loo xamante ni habitude la ci prison yi dafa dem ba nekk xëj na sax benn benn règle ci prison yi parce que man waxtaan naa koo xamante ni il a fait 19 ans de prison mais ku ci génn seen premier souci problème mu homosexualité lañ lay wax parce que da ngay gis góoru yàlla bu dugg bu duggu ci kaso bi euh, buy génn bu amulee ndimbalu yàlla tuuti rek day daal di verser ci homosexualité mhm. parce que pour un début booy soog a ñëw euh, comme on dit ah wàcc bees ngay nekk donc dañuy weñ sa loxo mhm. euh, qu'on le dise ou pas am na ci ñoo xam ne dañuy weñ seen loxo mhm. dañu leen koy forcer heure biñ la koy def comme tu l'as dit tantôt c'est à des tu peux pas te permettre de crier tu peux permettre de semer des désordre à cette heure-là parce que toi tu te dis su ma ko defee demain je risque gros parce que même bu fekkee ni garde pénitentiaire yi du ñoom ñoo lay du ñoom ñoo lay attaqué ñi nga bokkal chambre il peuvent te créer des ennuis le lendemain donc tu préfères subir ba pare daal di noppi euh, ndax ñi nga xamante ne ma del soit ci li ma la laajoon ñoom ñoo yor kaaraange euh, kaso yooyu leen ñu ngi ciy teg seen ay gët wala ndax dañoo yëg mbir mi dëgg ci bal daal di noppi wala lan moo tax ba loolu di gën di bëri ci prison yi waaw man interpellation yi am na solo te bi nga mujjee sax man foofu laa njëkkee tontu soog a yëg muy maanaam euh, moom mooy lan moo tax ñenn ñi di ci consentir parce que en réalité ci témoignage ñi ci introduit ñu ci bëri dëppoo nañ ci ñaari mbir benn mooy heure bi li ñu ko def à des heures tardives la ñaareel bi tamit mooy am na ñoo xam ne dañ leen di forcer. mais imaginer bu fekkente ne ay ponkalu magum jëmm ñoo xam ne ñoo la sut ëpp la doole ëpp la kattan boo bañee sax ñaar wala ñetti ponkal jug forcer la dañ la koy def te doo ci mën dara. donc foofu noonu te boo fa nar a yónni effectivement ni nga ko waxee noonu la am na ci yenn problème yu bëri benn xeex yu bëri yu am prison li koy indi mooy da tëdd ba xaaju guddi boo fa donc loolu moom am na léegi nag responsabilité ñi nga xamante ne ñoom ñooy garde pénitentiaire ndaxte témoignage bi ñu déglu léegi ci Mamadou Diop mi ngi koy wax buñ fa idée ci instruction yi nga xam ne dañ leen koy defal di leen ko fàttali liñ leen di njëkk xamal mooy loolu dañ ko fi interdire mu nekk pratique dañ leen koy xamal mais si instruction yi duñ ko suivre ndaxte da ngay gis ne dañ koy amal ci biir prison yi te tamit nit ñi ñuy indi tribunal en tout cas ñun ñu ñi nga xamante ne dañ spécialisé wu ci ci ci chronique judiciaire dossiers yi ñuy gis yëpp amul benn dossier bu ñu gisagum ne ay nit koo xamante ne ñaar ñu ñu bett prison ñu def mbirum góor jigéen ñu indi leen prison ñi ngi ciy gis ñëpp ci bitti lañ leen di jàppee dégg ngeen jamono yi ñañ jàppee woon ginnaaw pale dégg dossier bu Thiès bi dégg ngeen yeneen ak yeneen ak yeneen donc man gisaguma dossier boo xamante ne biir prison la jóge li ñuy gis ñuy jóge prison di ñëw tribunal yëpp mooy ñi ñu jàppee ak yàmbaa ci biir te foofu sax xam nañ ni détenu yi du ñoo génn jënd ko la jële yàmbaa ji biir prison ko ci prison loolu bi mais loolu beneen débat léegi pour par rapport ak sa interpellation ñi nga xamante ne ñoom ñooy garde pénitentiaire donc ñoom dinañuy joxe seen instruction loolu lañ mën loolu la ñuy def maintenant nag bu fekkente ni joxe nañ instruction ñu dem ba xaaju guddi trois heures du matin la fay xew bu fekkente ni ki nga xamante ni moom la ñuy jëflanteel mbir moomu noonu jugul wax ko jugul euh, maanaam def dénonciation ñoom mënuñ ko yëg même également bu ñu demee ba au petit matin kooku def dénonciation dem ci garde bi ne man dañ may def lii ak lii ak lii dama responsabilité garde pénitentiaire bi mooy bu ñu leen mënoon a isoler séparer leen. justement mais ñu trouver ay mesures yoo xamante ni dinañ mën a veiller à ce que même xaaju guddi kenn du euh, teg kenn benn pratique. boo xamante ne mais autre chose Pape pratique leen neex nga baal ma yaa ngi koy wax. pour la plupart c'est des gens yoo xam ni ci biti la leen di jàppe indi leen ci prison bi euh, man li ma gëm mooy ki nga ki nga jàpp pour acte contre nature. soo ko yóbboo foo xam ne da nga koy paqueté ak ay nit mooy favoriser nga. mu def lu mel noonu. Euh, lan moo tax bu ñu leen ñëwee c'est-à-dire première punition bi après ginnaaw bu ñu la bu ñu la bu ñu la bu ñu la tëjee pour man première punition bi mooy isolé la. Mm-hmm. Euh, mais aussi dafa mel ni problème mu pro euh, promiscuité bi nga doon wax sànq euh, parce que bu ñu nee ni tamit dañuy paqueté ay nit xëj na. isoler ñooñu dina jafe mm-hmm. mais il va falloir également trouver des solutions Absolument. les c'est quoi parce que tu peux pas condamner une personne pour acte indi ko boolewaat ko ak ay moroomu góoram mhm. tout en sachant que ces mêmes faits yu mu jëlee ci bi ci mën na leen andiwaat ci biir mhm. étant donné que dañuy bëri ci chambre bi mhm. dañ leen di paqueter pour ñu tëdd euh, man daal est-ce que du quelquefois pratique yi yoon bi di doxee c'est un peu contradictoire justement parce que tamit loolu moom moom dafa am moo taxoon may évoquer léegi mbirum responsabilité yi parce que quand on que prison yi moom dañ leen di confier rek ñu jël mais ñi nga xamante ni ñoom xam nañ ni kaso yi fees nañ dell terewul chaque jour yóbbu fa ay nit systématiquement de manière systématique prison yi loolu mooy problème bi juge d'instruction yi ak procureur yi ñoom ñooy xam nga ñoom ñooy ñoom ñooy am compétence ak pouvoir décerner mandat de dépôt mm-hmm. mais ñoom xam nañ ne prison yi dafa euh, dafa fees am donc léegi nag ñoom déjà première solution bi foofu la war a génnee looloo tax sax mbirum loi Latif Gueye bi ñu ciy wax affaire de trafic de drogue bu ñu la jàppee lu ëpp un kilo dañu lay yóbbu assise looloo gën a indi surpeuplement carcéral mais beneen niveau bi mooy am na ñu xalaat ni defar ay prison mooy li nga xamante ne moom mooy solution bi mais loolu même bu fekkente ni solution mënul nekk solution bu définitive ndaxte Sénégal moom ba ñu jëlee indépendance ba léegi c'est constant que tabaxuñ prison bees en plus amul benn prison boo xamante ne dañ ko tabax ca njëlbeen mu destiné woon ñu def ay détenus sauf la prison de saint la ñu woon prison bu Kaolack tollu ceeb la woon prison bu Rebeuss dara et cetera léegi nag solution bi dama yaakaar mooy avant ñu xalaat sax tabax ay ay yeneen prison parce que am na projet boo sectoriel justice bi maanaam euh, prison bu Rebeuss dañ koy transformer yóbbu ko fële nga xamante moom mooy complexe bu Sébikotane mm. mais également créer ay tribu euh, ay prison régionales yoo xamante ni dañuy am capacité 1500 places parce que loolu mooy li nga xamante ni moom mooy dëppoo ñu continuer di fa envoyé ay prisonniers yoo xamante ne ñii ay détenus provisoires lañ ñii dañ fa jaar pour jàll dem feneen ñii mandat de d'arrêt moo leen fa yóbbu nañuy jéem a xool yan mesures yu efficaces la ñuy jël pour que loolu bañu am parce que loolu véritablement mooy li nga xamante ni moom mooy euh, favoriser euh, les pratiques homosexuelles dans les prisons te nekk noonu loo xamante ni lu jar a jóg la ndaxte surpeuplement boobu dafa am ay conséquences te conséquences yi day di yàq jikko yi. di transformer ay nit ñoo xamante ne ba ñuy dugg prison loolu bokkul woon ci seen i jikko dañuy dem ba ci biir ñu forcer leen ko mu dab leen te nekk loo xamante ne luy gën la ci société bi. Pape juste balaa ñuy dem ci deuxième élément bi garde pénitentiaire yi nga xamante ne euh, xanaa guddi duñ fa nekk. xam nga prison dafa am configuration te yaakaar naa dinañ ci gën a dinañ ci def émission spéciale sax pour xool ñoom seen liggéey nan la nekkee euh, ñoom seen mission d'abord. au-delà de contrôle bi nga xamante ne dañ koy def pour éviter les cas d'évasion ndaxte gis nañ ni boo duggee foofu am na benn kii bu mag bu nekk ci kaw boo xamante ni moom mooy assurer seen contrôle euh, ça ne veut comme dafa mel ni da koy jël à l'image des postes de police ak gendarmerie ça ne veut pas dire bu guddi jotee ñoom ñëpp dañ leen di bàyyi fële dem mais ci biir prison ci biir chambre yi nga xamante ne ñoom du ñu fanaan ak biir détenu yi ci biir chambre yi donc ñoom à l'extérieur la ñuy nekk di veiller léegi nag lay xew ci biir à l'intérieur bu guddi jotee ñëpp tëdd ñëpp fay lampe yi fay et cetera loo fay xew loolu mooy li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi léegi nag ñoom li ñu mën a def mooy si ces faits là sont portés à leur connaissance ñu jël les mesures qu'il faut pour que pratique yooyu nekk loo xamante ni dafay cesser mais également tàncaloo bu metti bi am ci biir prison yi te c'est une réalité kenn mënu ko weddi loolu également mu nekk loo xamante ni dañ ci jël ay mesures mu dëj ndaxte yàgg nañ ko fi wax depuis combien d'années ñuy on parle de surpeuplement carcéral mais ba pas yoo xamante ni allant dans le sens de faire euh, loolu dañuy yàgg soulever ay problèmes observateur des lieux nationaux loolu ko tax a jóg def inspection au niveau des prison def na ay inspection ginee na ay rapport formule na ay recommandations yoo xamante ne état du Sénégal moo ko war a appliquer mais lan mooy empêcher ñu appliquer ay mesures yooyu recommandation ak proposition yi ñu def lan mooy war ñu tere ñu appliquer ko je pense que bu ñu ko appliquer woon rek dina nekk loo xamante ni dina wàññi bu baax a baax pratique yooyu nga xamante ne day am ci prison yi te nekk loo xamante ni daal euh, lu gën la ci société bi daal c'est élément. waaw loon kon xam naa du ñu def lu dul dugg ci deuxième élément bi nga xamante ne dañ ciy dugg lu Oustaz Assane mu xamal ñu lan la diine wax ci jëfin yooyu nga xamante ne moom mooy jëfin yooyu góor jigéen yi ak également lan mooy solution yi nga xamante ne xëy na buñ ko appliqué mu nekk loo xamante ne dafay kon bu fekkente ni waa Régie jekk nañu rek ñu ànd ak ñoom suivre deuxième élément boobu laata ñuy dellusiwaat fii ci plateau bi ngir poursuivre débat bi ngor jigéen euh, ci lislaam bu ñu delloo ci alxuraan dañuy fekk ne ña ko njëkk a def ci kaw suuf mooy nitu yonent yàlla lóot yàlla itam ŋàññi na leen wax na ne yoonu alkange la boo xam ne képp ku bépp askan bu sóobu ci loolu te téyewuñu seen loxo pour ñu bàyyi ko seen mujj du rafet te alkange lay doon jigéen nag nekk na jikko joo xam ne lislaam euh, daf ko tere comme ni mu teree njaaloo comme ni mu teree li ñuy tuddee sifaax maanaam euh, jigéen ak jigéen di sëy loolu góor jigéen itam dafay dugg ci cadre boobu nga xam ne bokk na ci li nga xam ne lislaam daf ko tere mu nekk comportement boo xam ne itam euh, feeñul ci biir xeet lu dul xeet boobu yàlla alak na leen feeñul ci biir xeet lu dul xeet boobu yàlla sotti na mbugal boo xam ne du yem rek ca ña koy def waaye ci ci askan wi kon comportement la jikko la joo xam ne du ñu ŋàññi na ci lislaam ku ko def nag lañ la war a def ci lislaam mooy ñu euh, yóbbu la fenn tëj la fa sànni la fa ba nga génn àdduna bu fekkente ne teeluloo ginnaaw loolu mooy fekkente ne tuubuloo nga bàyyi ko loolu mooy sa àtte mooy ñu euh, faat sa bakkat kon ngóor jigéen dafa araam comme ni njaaloo araamee comme ni sifaax araamee te mooy sëy góor euh, sëy ñaari jigéen euh, mu nekk phénomène boo xam ne itam bari na lu muy fës ci jamono ji ñu toll rawatina ci réew yi mel na suñu réew yi xëy na li ko waral nag mooy importation wu ay jikko yoo xam ne euh, du suñuy jikko du suñuy éducation wu diine waaye loolu dafay yaatalal responsabilité bi itam ci côté ñi nga xam ne ñu war leen teg ci yoon woo xam ne yoonu jikko ju baax la yoonu éducation de base la boo xam ne day tax ba nit ki comportement yu mel noonu moo koy bañal boppam au lieu ñu koy ñu ko ñu ko koy euh, tere wala di indi ay mbir yoo xam ne day dañ koy baare ci kanamam moom ci boppam moo koy war a bañ loolu nag pour mu am il faut ñu delloo si euh, yaru diine ci biir askan yi comportement yooyu mën a dell dellusiwaat te loolu responsabilité borom xam-xam waaw euh, solution bi mooy euh, nit ñi delluwaat ci orientation wu diine xam nga ñun ci Sénégal bu fekkoonte ne dañuy dellu ci diine wala ñu dellu ci yu ci bari tey ci yi coow yu mel noonu du am kon il faut ñu soppi jikko yi solution bi nekkul ci bareel police prison yi nga xam ne ci la ñuy tëjee ñu def lu mel noonu waaye solution bi mooy bareel centre d'éducation yi nga xam ne école yi nga xam ne daare yi nga xam ne dafay orienté nit ñi pour orienté leen ci seen wàllu jiko waaye boo fu nekk boo fa tegoon police itam prison du tey itam comportement yooyu di am kon il faut pour indi solution ci jafe-jafe bu ni mel il faut ñu dellu ci éducation bi nga xam ne l'islam euh, teg na ko pour nit ki xam mooy kan ak tàmbali ak fan yem ak bëgg-bëggam yi fan lay jaar pour mën ko exploiter te du mbëkkanteeg diine du mbëkkanteeg jikko ju baax waaw am na ñoo xam ne dañuy naan euh, góor jigéen fu mu dëgg tànkam ku fa dëgg tànkam bakaar bi mu am nga am ko wala lu mu lekk ndab bu mu lekkee boo ci lekkee nga am bakaar bu mu am yooyu euh, ñoo ci ñàmba ñoo ko ci ñàmbaas ñun suñu aadala waaye lislaam dafa ne wala taziru waziratun wizra uxra ki def lu bon keneen mënul am bonuk loolu lu bon loolu lu dul ki ko def rek kon euh, yooyu ñuy wax yëpp ñun suñu suñu aada ci cadre aada lañ koy waxee waaye nekkul loo xam ne am na cëslaay ci diine. di jaajëfal oustaz Assane mi ñu àndaloon ci euh, élément boobu naana sa naana naana naana naana ñu ñëwaatee ba tey dégg nañu lu ci lislaam wax mhm. mais sànq tamit li nga wax dafa am solo am na ñoo xamante ne dañ koy judduwaale dédouané wuñu kenn mhm. am na ñoo xamante ne da leen di dab mhm. waaye euh, li coro doon wax bu ñu dugg rek ci aspect góor yi bàyyi jigéen ñi effectivement ak tamit ñi nga xamante ne sànq histoire bu ñu fi wax histoire bu doy waar effectivement parce que ci gëstu bi sax jéem nañu xool lan mooy poussé nit ki muy def loolu noonu euh, ci ñu ñu seetlu ci ñeent bi si jiitu mooy am na ci ñoo xamante ne ñoom dañuy roy ba doom ba ma nu ñu koy lakkee roy ba dàq roy ba dàq maanaam film yi nga xam dafa am film yoo xam ne dafay dugg yuy def promotion mbirum góor jigéen ñoom ñu koy seetaan ci wax non ko denc xaar bañ bañ yegg ci moom rek ñaareelu mbir bi mooy mbirum éducation bu fekkente ne da nga nekk góor yeroo ci kër boo xamante ne ay jigéen kese fa nekk di def loo yooyu nga koy assister ça ne veut rien dire boobu moom d'accord mais moom ma ñëw rek cest à foofu li ma ko bëgg a génnee mooy mën nga fa ñi nga xamante ne loolu daf leen di dal le plus souvent dañuy efféminé am ay gestes ak yooyu efféminé te yooyu noonu c'est un comportement yoo xamante ne na la conduire à l'homosexualité boobu mooy deuxième cause bi nga xamante ne gis nañ ko ci benn euh, kii bi beneen bi également mooy am na ñoo xam ne moom mbon kese moo leen ci dugal du question de judduwaale du question de leneen bon parce que d'habitude c'est des boo waxee les homosexuels effectivement boo waxee lu bëggul yomb da ngay ñëw nga nekk soutien de famille nekk fa war fa daan doole war a dog bu mu gàcce yi amoo beneen proposition lu dul loolu donc yooyu mooy ñi nga xamante ne mooy ñeent ñi nga xamante ni gis nañu ne lool da da koy favoriser te ñee ko góor ñi di defee parce que bu ñu nee mbirum góor jigéen xel yëpp dem ci góor yi alors que tamit du ñoom kese ni ko góor yi di defee noonu la ko jigéen yi di defee dañ fi am seen boîte de nuit spéciale yoo xam ne fa la ñuy dem am fi seen ah restaurant oui ci même réew bi war na ci xam lu bëri dama ko dama ko ko ci laaj sax yow non du mais am nga xel ak xalaat ci ci ci sujet bi. mais am nga xel ak ci homosexualité. non du ma si wax daal ça me concerne pas donc sama liggéey moom ma concerne du ma nekk di wax affaire homosexualité du loo xam ne. mat na ah, lii nga wax waaw. <laughs> xam nga. am na loo xamante ne nii man damay delluwaat ci prison yi nga génne parce que bu ñu nekkee ci dëkk bi moom di wax li nga xamante ne moom moo fi xew xëy na ku nekk mën na ne responsable la ci loolu mais xam nga man bu ñu duggee ci prison yi damay jàpp ne détenu yi ñoom nekkuñu responsable loolu man damay jàpp ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen fa dugal teg ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo yore euh, kaaraange réew mi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy responsable bi xam nga tax ki nga xamante ne nii comme Thiago ni mu ko waxee sànq bu fekkee ne li ñu la def danga dem nga boole ko soo ko boolee génnewuñ la fa nga ko defee te amul dara loo xam ne mën na la uutu pour que yow bu lay ñooñu ñoom dinañu ñëw pour taxawu la xam nga loolu da ngay préférer subir leen lii que nga dem wax ko loolu muy nekk benn point boo xamante ne la nii ki muy dal mënoo koo wax da ngay jàpp da ngay euh, téye loolu pour yow ci sa bopp mais pour man dama dégg sànq nga ne que loi bi dafa nangu ne bañul góor jigéen mais dafay bañ. nit nit ñi gis nga jëfe ko. loolu yow mënoo xam ne góor jigéen mi ngi ci biir prison yi man ma xam ko ñoom ñi nga xamante ne ni ña foofu noonu ñu ne xamuñu ko loolu mënul nekk. Mhm. donc ñoom moom forcément xam nañ ko. la tax ñu xam ko te jëluñu euh, kaaraange gi wax ci ñi nga xam ne loolu lay dal mooy que ne seen wax bi ñu wax moom la ñuy dëggal comme quoi que ne ñoom bañuñu ku ko def mais bu mu ko pratiquer ci seen kanam mais bu ko nit ñi defee ci seen ginnaaw amalu leen problème mais ñoom daal bu ñu ko fésal. kon loolu moo tax ñuy leer na leen trois 3 heures du matin yenn heures yi loolu mën na fa am dinañ ko dégg dinañ ko xam comme ñun niñ ko xamee mais boo gisee def intervenir ñu ci loolu noonu mooy que ne seen wax jooju moom la ñu nangu te dangay gis que ne loolu dafa dem dem dem da ngay ba da ngay euh, sentir que ne góor jigéen bu yàggee tuuti dinañ dem ba nangu ko fii ci senegal mm-hmm. pas bu njëkk bi rek mooy nangu loolu comme nii nii ne nangu nañu nit ñi def ko mais buñ ko fesal mooy premier pas bi mais mën nañu dem tamit ba nangu ko est nit ñi dañu war a toog rek ba ñu egg ci stade boobu noonu ñu naan déedéet lii waru fi am parce que fii dëkku juddit la parce que lii nangam gis nañ ne lii raam ci ñag bi la jëm mm-hmm. balaa mu fay egg est-ce duñ ko dogaale jël ci matuwaay yi a jël mm-hmm. ah waaw parce que moom li mu wax yëpp boo ko tënkee dafay jum jum rek ci responsabilité garde pénitentiaire yi bu fekkente ni yenn détenu yu victime def nañu ay dénonciation ban comportement la ñu war a adopté te yaakaar naa ci biir waxam sax moom génne na mais warul yem rek ci garde pénitentiaire yi dafa war a jóge ci kaw lépp lu aju ci wàllu yoon képp ku laaleeg yoon en effectivement parce que même bu fekkente ne garde pénitentiaire bu naree dem tribunal nar a def ay dénonciation il faut léegi nag en l' absence de ces preuves bu fekkente ni Berthoulène flagrant délit wala mu am ci mesure sur simple dénonciation la donc la première décision à prendre isolement ñu jéem leen a séparer mais également ñoom seen liggéey la xarañ nañu mun nañu trouver ay mesures yu efficaces solutions yu efficaces pour que loolu bañ xamante ni euh, heure heure la yoo xamante ne day fekk ne kii tudd nañ et tout ça là léegi nag beneen débat bi nga posé moom c' boo xamante ne moo fi posé wu par rapport bi nga xamante ne ñi niñ koy wax parce que discours yi sax dañuy faral di wax ne le Sénégal n'est pas encore prêt mais moi je dirais pas que Sénégal n'est pas prêt mais je dirais que le Sénégal n'est pas fait pour dépénaliser l'homosexualité parce que c'est euh, une pratique boo xamante ne qui n'est pas conforme ak suñu aada ak suñu cosaan effectivement donc li nga xamante ne moom mooy répression bi également dafa war a mat sëkk ñu bañ a rek yem ci ki koy jëfee mais ñaar yëpp nga doon ko ak nga jëfee ko parce que dafa gisee ci homosexualité bi nii noonu nga koy gisee également ci ci ci mbirum prostitution ñun ñëpp xam nañu dañ ko légaliser Sénégal li ñu exiger rek mooy nga am carte mën a aar ki nga ko seqal ñett yi lañ yoon di tere défaut de carte sanitaire non inscription au fichier social et sanitaire ak racolage bu weesoo ñett yi c'est légalisé donc dëkku diine bu toll ni Sénégal waroon nañ fi ta ndagal mbirum cagatu donc voilà benn responsable dañ koy gisaat également ci mbirum homosexualité naka ngay teree ku koy jëfee te terewoo ki ko doon ñoo xam ne dañuy taxaw di ko revendiquer créer seen i association di am seen i réunion périodique jamono la passé mois de mars ba le passé at bi ñu génn nii gisoon ngeen fi dossier boobu le journal Le Populaire defoon yoo xamante ne ay ministères ñoo leen ciy défendre di leen couvrir exposition bi fi amoon bërki Dembo Ndiaye tamit gis ngeen ko dañ ko mm. mujjee tere mais lan moo taxoon ñu jiitu jox leen autorisation ñu ko fiy def ci dëkkub diine bu toll ni Sénégal ñu fiy fa euh, autorisé ñu fi def ay exposition ci mbirum góor jigéen il aura fallu que presse bi wax ci pour que ñu interdire ko foofu la ñu war a woon yeeg donc responsabilité yi foofu la nekk dafa am loo xamante ni il faut avoir une position tranchée sur la question Barack Obama bu mu fi ñëwee di ko wax Macky Sall da ko tontu tontu bu leer ñu yaakaar ni le débat est clos mais seen ambassadeur bi fi woon bay ñibbi daf ci que le Sénégal n'a pas la question lu leer nañ nga xamante ni comité des nations unies wa doo fa dem ba à l'international loolu la ñuy proposer pour ñu dépénaliser ah. mais est pour ñu nangu ko loolu moo man gëwuma ne loolu dina fi nekk sénégalais seen bopp ñoo ko dul accepté non seulement duñ ko accepté duñ ko du ma ne sax Sénégal parce que dañu war a dindi ci débat sax que Sénégal pareegul Sénégal du mës a pare pour loolu mais euh, Pape yeneen ñaari aspect yi ma bëggoon ñu soulever moo di peine bi normalement ñaata la ak est-ce que kuñ ci mës a jàpp mës tëdd ba penam jeex parce que loolu tamit débat la. kooku débat la te c'est très intéressant parce que article 319 beneen bi tamit euh, nga baal ma balaa ñoo àggali beneen bi mooy li mu wax mhm. est-ce que euh, ñu nekk ñu ñu préparé xanaa xamoon ni le fait ñuy ci débattre di ci débattre psychologiquement day dem ba day installé wu ci bopp nit ñi loolu rek prépa la pour mën koo adopter wala prépa la pour nga xamante ne psychologiquement dañ ci dañ ciy ànd. maanaam mais n'empêche c'est une pratique euh, sociale boo xamante ne il faut que en parle léegi par rapport ak euh, li nga évoqué léegi nii ndax dinañ purger seen peine ndaxte article 319 code pénal dafa ne li nga ci mën a jëlee ci ay katub kaso mën na dem ba juróomi at mooy maximum bi. néew na nga gis tribunal ku ñu reconnaître coupable ñu tëj la lu mat loolu noonu li ci ëpp mooy la muy benn. ñaareel bi également gis nañu ay nit ñoo xamante ne dañ leen di reconnaître coupable tëj leen kaso après ñu génne leen li nga bëgg foofu mooy libération conditionnelle gis nañ fi ay góor jigéen yu siiw ñu ñëpp jàpp bañ taxaw nangu ko après ñu may leen libération conditionnelle parce que problème bi xam nga fan la nekk te dama koy wax grâce présidentielle ak libération conditionnelle mhm. grâce présidentielle dafa am ay conditions boo violé mënoo ko am bu pour rëcc ci grâce ñoom dañ koy koj ci libération conditionnelle parce que libération conditionnelle tudd tëralu conditions yi libération conditionnelle jëye boo mënti def mën nga ko am conditions yi ñaar kese la benn nga purger moitié liñ la tëj bu dee 10 ans la tëj boo tëddee 5 mën nga ko am deuxièmement nga am bonne conduite en prison donc ñi mënul am bénéficier ci grâce présidentielle yépp dañuy def recours ci libération conditionnelle. peine bi fi gën a élevé bi ñu ci gis bon bu weesoo deux ans yi nga xamante ne benn caporal de l'armée comme ni ko journal l'observateur euh, génnee fële nga xamante moom mooy Thiès kooku deux ans la lañ weesoo boobu tamit gis nañ fi dossier bu ñëw fii tribunal bu Ndakaar dossier bu siiw kooku bañ ko reconnaître pouvoir quatre ans lañ ko tëj mais bi ñu demee ba cour d'appel cour d'appel daf ko ko wàññil ñu dem ba biir mu mujjee ci am libération conditionnelle donc loolu tey ba ba association yenn fii gii gii sax jógoon nañ di ñaawlu lool naka la nit di euh, violer wala affaire pratique homosexuelle ñu lay may libération conditionnelle mais mi ngi noonu libération conditionnelle deux conditions yooyu kese la teg purger moitié sa peine bonne conduite en prison bokk la grâce présidentielle bi nga xamante ni moom lépp luy affaire la ko reconnaître coupable mënoo am grâce léegi nag ab jalgati dafa am ci libération conditionnelle ak ci grâce yi jalgati bu leer nañu bu fës tëdd jalgati yooyu du ñun ñoo ko tudd magistrats yi seen bopp ñoo ko dénoncé à travers seen regroupement bi muy UMS génne communiqué boo xam respecté wuñ charte yi ñu war a respecté ngir jox nit ki libération conditionnelle ndax dafa am ay règles il faut que jugement bi nekk lu définitif mais da ngay gis koo xam ne justice pareegul ak moom nga may ko libération conditionnelle atte guñ ko atte bi pareegul nga may ko libération conditionnelle wala nga may ko grâce présidentielle xam nga loolu ab jalgati la bu fees boo xamante ne moom euh, du simple accusation mais c'est un constat boo xamante ne ñëpp ko defandoo. léegi ci tënk balaa juste suñuy pare est-ce que loolu bokkul ci luy parce que ki nga xamante ne xam na ni bu ko defee du mujj fenn cinq ans yi du ko tëdd ba mu jeex bokkul ci li koy encourager pour muy dem. di ko parce que faible su sanction boobu sax moo tax ñenn ñi gis ne jëfin yooyu dafa bëri léegi ñoom li ñu proposé mooy peine bi ñu gën ko diisal. mais tamit est-ce que bu ñu diisalee peine bi loolu nekk na loo xamante ni di dina leen dina leen. di peine yi pour la plupart. effectivement te tamit y a beaucoup de cas qui passent sous silence. li ñuy yëg ba koy indi tribunal néew na par rapport ak li nga mhm. xamante ni véritablement mooy am parce que bu fekkente ni danga nga dem tëju sa nekk tëj double clé double tour kenn du la yëg mais en tout état de cause ak yenn menaces ñu xam ne loolu moom dafa nekk loo xamante ni moom kenn du ci yox te kenn du ci